l'autorité mën manam am jël décision bo xamni mais lu li ci ëpp ci li ma gisoon <clears throat> li ma gis ba deug euh manam euh, euh ñak ñak euh ay jumtukaay yu joggé ci euh, kilifa yi moy sen problème maanaam kilifa yi dimbaliwul leen dimbaliwul leen ci manam budget bo xamni ne bi dana mën liggéey ah def ay mission am auto am essence ak yépp wala ñu am ay personnel yu doy ni manam ay inspecteur vérificateur yu doy bu ko defee même bu féké ne budget mënut a recruter ñu may leen ñu jël ay expert comptable wala yeneen expert yo xamné bu ñu amé ay mission yo xamné soxla na leen ñu jël leen parce que ñoñu dañ leen defal ay contrat rek contrat ah, contrat rek xaalis la je suis de rek je ne dis pas mais je veux que c'est moins cher qu'un que de recruter un expert comptable pour mu nekk dans l'administration mais ñi def bay manam ñu jël leen ki li xam-xam ci lii la màcc dañ nañ ko jël mu liggéeyal ñu juróomet bu pare dem na mu dem ñu wut keneen wala ñu bëgg ñetteet bu ko defee ñu bo ñu jël leen ñu nekk ak ñi nga xam ne moom fonctionnaire lañ ñooñu ñu jàppale leen bu ko defee déjà liggéey bi dana gën a yaatu bu boobaa liggéey bi dana gën a am aw yoon. ñuy vérifier non cest à ñoom seen seen warugar mooy kun ci jox mission nga war dem vérifier ji am am na am na booy dem war nga xam ñaata maanaam ñaata fan nga fa war a def. Il y a complication Si demain, par exemple un mois ou 45 45 jours complexité liggéey que mais si vous voulez wax un, ci rapport il faut que taxaw vous ko mais buñ ko sàggane dem na way bon je m'exprime au Sénégal parce qu'il y avait ceci il y a ceci il y a un décès un baptême etc. bref il y a des raisons qui font qu'on reporte alors au lieu de 45, on passe <laughs>

ñom buñ leen jox mission buñ leen jox dañ ko war a defee yépp buñ bu leen xaj du doon tàggale daal dañu war a fexe daal mission buñ leen jox ñu def ko dans les délais mu génn mais ñom seen liggéey moo ñu def rapport bu baax mu génn lima wax sank ci question buñ posé won moy euh injonction euh contrôleur manam ñuy wax pour que ñu wax kilifa gi mu génne rapport bi non koku du suñu la du suñu warugar du seen warugar li ñu war def moy nañ liggéey liggéey aw yoon rafet gaaw jigéen léegi nag ki nga xam ne moo jara jox rapport moom lu mu ci def moo xam su ko defee lii wax euh, ku nekk def li nga war a def. Ah, fan yii gis nañu man de ànd naa ci de loolu de wax dëgg un slogan su fekkee def su fekkee du slogan si c'est pas un slogan je suis d'accord il faut jub jubal kooku yàgg na fi loolu moo nag la déontologie bi ñu jàngale ci école loolu la c'est pas nouveau ça c'est pas nouveau hein il faut pas c'est vrai que ba formaliser na ko bañ ji mais non boo déwéntu école bi loolu fi jàngale da ngay jub jubal jubanti

sukkandikoon ci wóor woor kooku moom wax dëgg yàlla ànd naa ci mu joxe mais ñi nga xam ne moom dañoo bëgg profité rek na président na nii ñu da di jël na yow ah yow kii kat gis naa ko mu génn fii rek lim lim nekk leerul tuumaal la kooku c'est pas bien xam nga loolu ni ñuy waxee jébaane nit ñi wala ngeen di leen juñ loo xam ne defuñ ko da nga d'abord da nga leen di euh, seen teraanga da koy dindi te loolu du dëgg du yoon jullit dafay nit ku baax def loolu loolu tax man pour man koo xam na kii daal am nga information bu wóor a wóor wóor bala ko joxe bu ne lanceur d'alerte ko ànd naa mais ñi nga xam ne daal dañoo dugg ci biir géew bi rek di jaxase euh, d'accord ma ak ñoom ci ñu li ñuy def et damay leen méfier wu nañ def attention ci ñooñu il faut ñu xàmmee ñi nga xam ne dañ leen di ñëw ci naan ci way way jox leen